boole ci ci seen playlist parce que man je te dis. Hmm? je me rappelle de la Youssou Ndour fan la ma njëkkee marqué xam naa peut-être di nga wax ne dama yàgg encore une fois moi j'ai suivi en direct télévariété avec Maguette Wade. Mm -hmm. le le le de de comment il s'appelle euh, Prince Prince Wade je crois de de la RTS. Mm -hmm. moo daan def télévariété et ci biir télévariété. mu mu invité Youssou Ndour muy way a cappella euh, ci benn chanson boo xamante ne c'était un hommage à Papa sama Diop. e euh, grand yu parce que vraiment nag sama grand la sama sama xarit la. Mm-hmm. te dafa am ci man cofeel boo xamante ne xaw ma nag loolu fan la jógee ma am ci moom cofeel bopp loolu. Mm-hmm. parce que ànd naa ak moom a plusieurs circonstances daje nañu ci ay situation yoo xamante ne vraiment mu sagal ma teral ma. Euh, grand vraiment dama bëggoon aussi euh, wax la cofeel bi ma am ci yow ak fi nga ma teg. Euh, te loolu. Mm-hmm. dafa dafa parce que Youssou Ndour il a bercé notre enfance. waaw non seulement daf ñu berse mais daf ñu accompagner mais comme ni ma koy waxee rek sa dire bu doon dafay way aussi te fekk woy bi amul sens wala paroles yi mënuñu si jëlee dara. Mm-hmm. xam nga tey tey xam nga la première chanson bi nga xamante ne ñu déjee ko Nelson Mandela bi ko Youssou di way. waay boobu c'était boobu jamono boobu c'était la chanson engagée mm-hmm. donc tey boobu ñoom felaa ngi fii ay ponkal yoo xamante ne ci biir Afrique Youssou Ndour tenir leen la dragée haute euh, Youssou Ndour est une star internationale une sommité euh, une fierté pour le Sénégal c'est-à-dire nit la koo xamante ne su may wax ci moom sama déjà fan sa nga dama lay wax parce que man bon euh, dama lay wax Youssou moom mm. vraiment ñëpp xam nañ ne aw ma ci sago waaw dafa di nag sama grand boo xamante ne moom kenn la ci man. il arrive ngay dem ay soirée Youssou Ndour bon xam nga bon je pour pas man su ma su fekkoon ne on était dans une société waroon nañu mën a def lu bëri loo xamante ne. Mhm. kenn du la ci am xool bu ñu lay xool beneen. parce que aussi la musique elle adoucit les mœurs. waroon nag nit ñi waroon nañu mën a am oyof bu toll ne. Mhm. Euh, nga war a mën a ànd ak sa famille. dem seetaani sa Youssou Ndour wala nga dem stade. mais loolu dara nekku dara nekku mais mais man mais moi mhm. je me rappelle. que j'ai été critiqué sur un article. ah parce que moment ma nekkee SNHLM mos naa fi dem à la Coupe d'Afrique ñu fàtte ne man dama jël congé dem Coupe d'Afrique parce que je suis un amoureux du basket <laughs> et que c'est ma famille ma dem supporter ji Sénégal sous le drapeau mais les gens avaient trouvé bizarre qu'un DG nekk dans des gradins <laughs> di di war a mën am peut-être. Euh, élan de solidarité avec une, ouais. une équipe nationale au point de pouvoir euh, tëpp wala kii mais attends on est ay nit la ñu. faut pas aussi euh, loolu aussi peut-être moom moo tax. Mhm. décalage bi gars yi créé. Mhm. avec la jeunesse mu am. ñoo waroon mën a toog di bokk ak ñoom ay milieux parce que am na loo xamante ne on les a en partage. da ngay am sa doom ngeen bokk musique bi ngeen bëgg. donc war ngeen a mën a. dem seetaani ko ensemble. justement sans pour autant que mu bañ a indi benn xawabal mais bon voilà quoi bon soo demee. gars yi dañuy jàpp boo demee Baara Baara Mundi nga ne da ngay dem nga dem seetaani Pape Diouf gars yi ne ne dégg naa DG gi fa woon di pàkkar bi mais xam nga yooyu aussi c'est pas bon quoi.